mbokk yi seetaan ñu fas yéene ànd ak yeen ci gamu 2015 and ko nak ak serigne Abdou fatta Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam tay mo tok toogaay serigne ci Mbacke Gaynde Fatma wub doom ji sëriñ Moustapha Mbacke mohammed eh, seen mbokk mbokk mbokk yi moo Fall Mbaye ànd ci yeen fego serigne khadim Ndiaye serigne Moussa Diop fas yéene na jëlal gam gi ni ko mbaaxoo defé eh, door ko nak ci serigne mohammed Mbacke serigne Mbacke Soxna Lo eh, secrétariat wilaya dan amul ak ziar ziar boobu la desuwaan tey ji amalaat ko ci kanam sang tedd sëriñ Fatah Mbacke Gaynde Fatma allah sëriñ Mbacke Diouf bu njaareem euh, fas yéene tënk ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci taalibe yooyu ma tudd jëm ci sëriñ bi sëriñ Abdou mbokki taalibe yépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi lay siyaare te di la sant di gërëm bu baax ci taxawaay bu màgg bi nga tooge te mat ko sëkk doon royukaay ci ñoom goo xam ne saa bu ñu la gisee yokk seen pas-pas namm seen passeef xeeb li nga xam ne romb nañ ko dëkk ma li seen kanam mbokk yooyu wax nañu ne sikkuwul toogaay bi nga toog mooy toogaay bu Serigne Touba mooy toogaay bu Cheikh Moustapha mooy toogaay bu Serigne Cheikh mooy toogaay bu Serigne Mbacké sonaloo sa mag ja mooy toogaay bii rek nga toog fi nga ko war a tooge ci pàkkub Cheikh Moustapha bu tedd bii nga xam ne li ko sos mooy liggéeyal sëriñ Touba ak taxawal yoonu murit ci lépp loo xame ne mooy tax mu jëm ca kanam moo waral pàkk bii tey Mbàkke nga toog fi mat ko sëkk julli yépp seen xol sedd ci yow ngir dal gi ak xam li nga doon ak dëgmal yoonu yàlla képp ku roy tegu boppam ci yàlla loolu sëriñ bi gis nañu ko te xam nañu ko te loolu mbégte la mu réeree ci murit yépp ak ci taalibe yépp waaye ñu xam ne sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo sos fédération bi te jubluwaayam lépp mooy lislaam jubluwaayam lépp mooy jullit yépp ñu sas leen ak benn buum jëm ci sunu borom moo doon soxla sëriñ Cheikh mu def ci liggéey bu rëy rëy ba bàyyi koo fi sëriñ Mbàkke ñëw toog toogaayam dolli ko waaye nga ànd ko ak moom xalaat ci xalaat yu rëy ba mbooloom wilaaye mii ci sa xalaat ak sëriñ bi ak ndigalam moo tax mu sosu ba agsi fi tey kon boo toogaay toogaay bi xam nañ sa yitte yépp mooy sëriñ Cheikh ak i xalaatam lu ko jëme kanam yàlla na nga ko jëme kanam ba fam séentu woon nga àggale ko sax fa xel demut woon te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax moom ngay doxe di ko waxe xàmmewoo kenn nag morom ja lu ay julli nga xàmmee waa sëriñ Serigne Touba nga xàmmee lépp lu mu tax jëm te kanam loolu moo si yitte loolu Mbàkke xam nañ ko muy lu am solo kon nag taalibe yi ñu ngi bég ci loolu te di la ñaanal yàlla nga yàgg fi lool te wér ba naa li Serigne Cheikh amoon sëñ Mbàkke am ko ak sa naali bopp yàlla na àggale yëpp tañ ànd ko ak yow di la ñaanal wér gu sax dàkk ak sa rakk yi ànd ak yow yëpp ak sa doom yi Cheikh Moustapha Mbacké mi sa doom nga ñaanal ko moom it ba yéene ji mu am ci tolu Serigne tubaab bii mu àggale ko te ànd ko ak yow loolu kàddu la yoo xam ne taalibe yi tënkoon nañ ko jëme ko sa jëmm ji di la seedeel ne fi nga nekk foofu rek nga war a ne ni nga mel noonu rek nga war a mel mooy lislaam rek la sëriñ Tuubaa rekk la ñor taalibe yi rek la kon nag loolu su nekkee ci yow ngay sunu kilifa loolu mbégte mu réere la ci nun waaye ju war cee jàng ne ñu nit li ñu war mooy ñu nooy nepp doon ay taalibe sax dàkk ci ndigal lépp luy tere ñu bàyyi ko xam ne fi sunu kilifa moom mi ngi ci yoon wi takut ko topp ànd ak moom kon nag ñu ngi mbég bu baax jotaay bi di la ñaanal suñu borom yok so fan lool togaay bi nga tok mu yag lool ba naa li nga bëgg sa bop nga àggale ko tañ ko ak yow lool dal sëriñ bi ci lu gatt moy kàddu yi nga xamne mom la mbolo mi amone ngir siyaare ko ci bis bu tedd bi ak ci guddugu mag gi di ci ñaan dal suñu borom dogal li ñu ñaan ci yow ak taaliba yépp ak jullit yépp ngay wax nañu ne jamono naqari na naam waaye day ñu ngi lay seedal ne kenn ku leen tane amul lu jamono naqar naqari ku leen tane ñoom ñii amul te li ko waral mooy sax ci ndigal moytu tere te buñ siggee seen leen fas yéene teg seeni tànk fen ko tegoon moo tax naqari gu jamono ak coonaam deesu ko yëg ndax suñu xol dañ cee nekk fees ko dell moo tax coone àdduna xamuñu ko loolu nag ndimbalu la loo xam ne suñu borom moo ñu dimbali bañ ànd ak ku na yow mii kon loolu ñu la koy seedeel di la wax ne nga ñaanal leen ñoom it seen yéene ci tool bi ñu mottali ko fas yéen a ànd ak yow ci liggéey bi ba keroog ñuy faatu rek du ñu wàcc du ñu sonn amul tay ndax Serigne Cheikh ka topp ci moom war ngaa xam ne yaa ngi ci yoon woo xam ne soo liggéey bu ñu àggee fa bu ñu àggee fa jëm doo ko réew ci benn yoon. kon nag yoon woowu bar na ay pakk bar na gàllankoor waaye ñaanal ñu ba pakk yi ak gàllankoor yooyu du ñu laal ba ñu àgg fañ bëgg a loolu ñu ngi koy wax ci kàddu taalibe yëpp ak kàddu julli fi teew yëpp nga ñaanal ñu laal loolu ñu àggale ko fañ ko bëgg a àggale kon daal sëriñ bi ci gàttal loolu moo doon kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci mbokki taalibe yi ni ma ko waxee léegi wilaya de femme ak wilaya de sën ànd ko ak adulte yi ànd ko ak bi bépp mooy kàddu yooyu daal ñu la koy seedal soo leen gisee ak boo nekkul ci yow lépp moo ne ci ñoom kon ñu ngi jéggul rek ci wax ji di wax asalaamualeykum wa rahmatulah barakaatu bak sëñ Tuubaa asalaamualeykum mbokki taalibe yi mbokki wilaaya Cheikh Abdoul Fatah Mbacké mi ngi leen di jottali am nuyoom di leen ñaanal di leen siyaare ci bés bu màgg bi muy laylatu mawlidi bi di leen gërëm ci coono yi ak jafe-jafe jamono ji comme ni ko sëriñ Mbacke waxee léegi di jiital ci cant yi rakkam ji sa rëkk ci moom muy Cheikh Abdourahmane Mbacke nga xam ne guddeem bëccëgam yëngutoom lépp ci ndigalam la ko teg lépp loo xam ne bu fi sëriñ Cheikh nekkan mu defal ko ko Cheikh Abdoul Fatah Mbacke nee na Cheikh Abdourahmane mbakki defal na ma ko sama ndigal moo ko bàyyi fu mu ne sama bëgg-bëgg moo ko bàyyi fu mu ne juyewut ak man ci lenn lu ma bëgg yàkkamti naa jóg ba def ngir rek di seet lu ma neex bu ma ko santut sax muy seet lu ma neex di ko def loolu nee na maa ngi koy yëgal ñëpp di ko gërëm di gërëm mbooleem rakkam yi nga xam ne topp nañ ci moom ci Cheikh Assane mii nga xam ne mi ngi toog ci wetam ak mbooleem euh, njaboot ak Serigne Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma nee na itam di gërëm itam ab taawam muy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo di taawab kër gi di taawam moom mi mu bokk ak Serigne Mohamed lépp di Serigne Cheikh di lépp ci Taïf ak ci baylaa ak ci mbooleem yoonu murit cér bi ko fi yàlla jox mu xam ko bu baax a baax jàpp ko amut lut ñoom nee na mi ngi leen di yëgal ne ay doomam rekk la am ay rakam rek la am ay taalibeem rek la am ku koy dimbale di ko jàppale na nga ko jàppale ci lépp luy boole njaboot gi te bañ koo defal loo xam ne day tasaare njaboot gi Cheikh Abdoul Fatah Mbacké nee na yéen ñëpp mi ngi leen di ñaan loolu ngeen jàppale ko ci lu ko boole ak njabootam ci saayir ak ci baatin te moytu luy tasaari njabootam ndax doom yi réclame ak rakk yi ak taalibe yi képp koo xam ne ànd nga ak moom ci loolu Cheikh Abdoul Fatah Mbacké nee na day jàpp na ni ngërëmal Serigne Cheikh da nga dajeeg moom moom nag ci loolu la fas yéene sax dakk koo xam ne nekk nga ceeg moom alhamdulilahi rabbil alamin gërëm na la koo xam ne def nga leneen lu wuteek ak bëggam it muy bëgg ak Serigne Cheikh jàppal la nga jàpp te bàyyi ko fi mu nekk moom day fas na yéene rek nekk ci ndigalal Serigne Cheikh ba mu koy wujji ni ko Serigne Mohamed defe woon mi ngi gërëm ñëpp mi ngi sant ñëpp mi ngi leen di ñaanal yàlla taxawaay bii nga xam ne taxaw ngeen ko yàlla na ko yàlla dëgëral te xamne kat mag ñi li rek lañ fi nekke gisee serigne cheikh sosan daayira sering mohammed ñëw joxe ndigalal wilaya li rek la bëggan moy xel yi xamé mag ñi yërëm gon yi yërëm mag ñi mag ñi itam sutural xel yi loolu mo taxan serigne cheikh defan ko serigne mohammed japp ci jox ko ndigalal mo and ko fu ma masa taxaw cheikh abdul fatah mbakki ne serigne mohammed joxan nako ndigal mo anan ko yéen mom mi bu munta dem yebal rakam ju teddi ji muy cheikh mbakki lolé fi nekkan di bëgg bëggab serigne cheikh di bëgg bëggab serigne mohammed mbacke muy bëgg bëgg mom mi na ci ñëpp maase ta xamna lool rek moy li nu amal ñariñ adina moy li nu njariñ ah, moy li amal ñariñ alakhirah ngeen bayyi xel ne yu ngoy jamono kër yi jamono kenn ku ci nekk da nga tok bi sa bi sa bopp boo xam fa nga tok buñ la tu do fa joggé te bu boba do bëgg kenn ku séri ci yow lenn lu lu baax lo xamne doon ko def te li ci dakk nak ñu séré la lo xamne yow miñ ko xamal waxal woor na la ne yow ma tedd xam nga ne waxal nañ la dëgg loolu kon nak kenn ku ci bayyi xel mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ngeen góorgóorlu ci jaamu yàlla ak topp yàlla ak dimbalante te yàlla tax te ngeen di suturaalante te kenn ku ci nekk lépp loo xam ne man bu ko dimbale sa morom ci sa wërsëg wala ci sa xam-xam wala ci sa doole nangeen ngeen man ko ci def ko te xam ne loola rek am njëriñ leneen lu waaye mën nekk lu dul lii yëngatoo àddina la te jamut fenn boo feebaree fàtte ko boo nelawee fàtte ko boo faatoo dajug yàlla yàlla nañu ci yàlla musal kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di leen yëgal ne moom bëgg-bëggam day genn rek la lenn loo xam ne sos na ko amut lenn loo xam ne it dana ko digle amut lu dul li fi Serigne Cheikh Mbacke sosan moom lay mottali li Serigne Mbacke nekkan ci ndigalal Serigne Cheikh loolu rek ci la fas yéenee sax li nga xam ne itam Serigne bi doon na ko bañ loolu rek lay bañ li muy bëgg nag mooy li Serigne Cheikh bëgg. képp koo xam ne daal la la Seexal Xadim waxaan nag wa man abaahu yaa baahu lépp lu yonante bi bëgg loolu laa bëgg lu yonante bi bañ loolu laa bañ Cheikh Abdoul Fatah Mbacke nee na foofu rek laa nekk bëgg-bëggab Serigne Cheikh mooy bëgg-bëgg lu Serigne Cheikh bañut lu Serigne Cheikh bëggul awuma ci soxla yéen ñëpp na ngeen jàpp loolu te loolu mooy li nga xam ne moo ne ci man te fu waay dem na nga xam ne loolu rek laa nekk yéen ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen jaboote te gërëm naa leen te sama xol sedd na guy ci yéen ndax dëkk bii suma fee dégg kenn koo xam ne dem naa atte la wala ma dégg kenn koo xam ne wax na moromam lu jaaduwut te loolu li ko waral mooy xam ne yéen bokk lépp alaxira gee nga xam ne noo fa jëm ak lu mu yàgg-yàgg ak lu metti metti nun ñi rek nooy wax nooy wëlbati ko waxtaan ak bopp kon nan defar jataay bi comme ni ko Cheikh Moustapha waxe woon defarul leen booloo leen boole seeni xol boole seen lépp lu njëkk ngeen di ñëw ndax kat la ma leen mën a dimbale da ngeen dama leen boole ba ngeen booloo kon nag nanu ndimbalal sëñ mu sëñ Mudu Mustafaa duñ ko am mukk bu du ne doona boole suñu bopp kon sëriñ bi nee na ngeen boole seen bopp muy benn yéeneen te jàmm te fu a nekk na nga yéene sa morom jàmm mooy li nga xam ne Cheikh Abdoul Fatah Mbacké wax na ko di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant soxna Maam Bousso mii nga xam ne lim doon ci kër gi rek la fi doon ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam mu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp te xam ne nee na lii mooy yoon wi yéen ñëpp bu ngeen fi jógee kenn ku ne na nga sax ci lii te xam ne moo la amal njëriñ àddina moo la njëriñ moo la amal njëriñ àllaaxira mi ngi sante ñëpp mu ngi gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, euh, mbokk yi daal di bàyyi ko Serigne Abdou Fatah kenn ku nekk. di góorgóorlu sàmmonte ak kàddu bu baax a baax a baax xam ngeen ne jëwriñ fédération bi nag teew nañ siyaar bi di sëriñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma waaye tamit sëriñ Gàdd Sall ak ñenn ci responsable wilaaya yi fekke ziar bi waaye tamit soxna Faati xariloo taxawaay macha allah rafet lool suñu borom bi nga xamante ne moo am fay tey fay yàlla suñu borom fay kenn ku nekk sa jëf ak sa xol ci barke ci am Bamba Xaadimal Mustafa jër ngeen jëfa mbokk yi seen mbokk mbokk mbokk yi moo faal mooy ànd ci yéen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen